waaw grand combat grand combat grand combat grand combat grand combat grand combat moom day am loolu Moustique grand combat grand combat ci biir grand combat grand combat ci biir

seen diggante Moustique numéro 2 face à Only Guns numéro 2 Only Guns dox na ci kawam dugal na coup Only Guns Moustique numéro 2 Only Guns mel na ni ku ko jëlee attention door ma door waaye jëlee na ko daan na ko daan na ko daan na ko daanu na waaw Only Guns daan na ko Only Guns numéro 2 daan na ko Dame Guiro Dame Guiro repasé diggante bu Dalifort première défaite première défaite pour Moustique numéro 2 Oligans numéro 2 bu Dalifort daan na ko jël bu rëy jël bu leer jël bu amul benn wérante Oligans daan na ko Oligans daan na ko Oligans numéro 2 bu Dalifort daan na Moustique numéro 2 jël bi rëy na jël bi leer na jël bi amul benn wérante waaw waaw grand combat grand combat l'arène nationale dès le mercredi 9 août 2023 a Gueye à de la structure Ouzin Production moo organisé woon Moustique numéro 2 première défaite am tey la ko jëlee fii ak kii di Oli Gens Daf Gero représente mi ngi noonu waaw rey ñëpp a déplacé wu ñëpp a mobilisé ñëw à la à Kaw Kaw Cissé seen mag seen grand frère Kaw Cissé ñëw na. Kaw Gourdin ñëw na Maki ñëw na Caatu Kayre ñëw na Lion Rouge ñëw na waaw waaw ndeysaan Dalifort ñëpp a déplacé wu Valdo bu Dalifort jëlal Issa jëlal combat ci biir bi nee na jàpp rek wàccee ndeysaan waaw waaw jëlal abu jëlal abu ndeysaan Antu Njaay Antu Njaay jël ko jëlal Antu Njaay jëlal Antu Njaay bu la fecc de yaay kontaan sa doomu nday daan na Polygone numéro 2 daan na jël bu rëy jël bu leer kii di Moustique numéro 2 waaw waaw mi noonu combat bi jeex na